àgg fa. mais aussi bu ñu bu ñu delloo ci ci ginnaaw euh, am na jàmm daana tàng. parce que Sénégal commencé wut dem commencé wut bërki dem. Euh, boo demee ci diggante euh, Blaise Diagne ak Ngalandou Diouf. c' était très chaud. sangoor ak Lamine Gueye. moom itam tàngoon na jër ba ay bakkan ci di ci sax même ci ci foo xamante ni bi ay këri diina lay doon. Maître Abdoulaye Wade opposition ak Abdou Diouf opposition bu tàngoon la. Mhm. kon aussi loolu day mel ne vitalité. vie politique bu Sénégal léeg-léeg muy indi yu mel noonu. Euh, waaye aussi ñu am chance su euh, waxtu wu ñu demee rek ba ba ñu bari ragal ne day basculer. Mhm. Euh, yàlla suturaan ñu ba ñu am ay ay solution toog jàmm dellusiwaat na xañ na réew mi am na foo xam ne mosu fa àgg. te par rapport ak yenn réew yu africain yu bare bëri. te même Sénégal am na am na trajectoire Sénégal am na am na chance am na loo xam ne aussi moom la ñu xamee. parce que mhm. aussi ak lu ak lu ñu mën di wax. Euh, foncièrement Sénégal yi nitu jàmm la loolu mooy li wér. Mhm. foncièrement Sénégal nitu jàmm la. Mhm. Euh, moo tax nag lu mu tàng tàng rek euh, jàpp nañ ne xañ na jàmm mën na cee mën na cee mucc te aussi xam nañ xam naa dañ ñëw ci beneen émission bi am na ay ressources yoo xam e bu ñu ko utiliser sunu borom mën nañoo defal sutura. c'est vrai justement ci ressources yooyu souvent bokk na ci kilifa diine yi nga xamante ni euh, bu ñu génnee wax bu tension amee daf kay apaiser nit ci bàyyi mais ñu remarqué ci époque bi ñu nekk nii ci kii yenn kilifa yi yëngatu ci wàllu politique am na ci ñoo xamante ni. kilifa diine yooyu bu ñu waxee dañ leen di tànkam lu euh, ñenn ñi également di mel ni ñu tëx parce wala euh, parce que bu kilifa diine yi waxee duñ du teewul dañuy toog ci télé yi di insister ci la fait que xëy na yenn kilifa diine yi seen rôle yi mataluñu ko comme il se doit. Euh, kilifa diine yi mosuñu ñàkk def li ñu li ñu war a def. Mhm. yi nga xam ne moo fi jaaru mois de naa ne wane wane woon na ko. Mhm. te commencé wutoon foofu c'est une longue tradition. Mhm. ba agsi foofu même tubaab yi. booba kilifa diine dañoo amoon taxawaay boo xam ne amoon nañ ko ci ci jàmm réew mi. ci soir dañ leen nettali ne la grève cheminot ba fi gënoon a metti mhm. Dakar ba ma ko kilifa diine ñoom Cheikh Amadou Fadal ak sëñ Babacar ci ñoom la sedde mhm. day sedd ci ñoom ndax seenu ñaan mhm. mais aussi day sedd ci ndax seen jéego yoo xam danañ koy seqi te nit ñi am foo xam ne fa ak ak nu ñu leen rusee loolu moo sabab ba Sénégal da ngay dégg ñu ne kilifa diine c'est des régulateurs sociaux loolu nag moom jàpp naa ne tey jii la gën a sax tey jii la gën a am. Mhm. ndax koo ci jël muy Tivaouane muy Touba. muy euh, Kaolack mhm. fu mu ci man doon ci kilifa ci ci kër ci kër yëpp du mu bàyyi gën kër mhm. euh, amu ci amu ci kenn koo xam ne dana taxaw wax Sénégal yi di ko di ko taxawlu mais li nga xam ne mooy li am solo moo di aussi rôle boobu nga xam ne ñu ngi koy joué ak statut boobu nga xam ne aussi sunu boroom euh, jox na leen ko ak charisme bi ak carrure bi ak dayo bi loolu aussi faw ñu nangul leen ko c'est extrêmement important et ñu nangul leen ko xam ne ñii chance nañu ngir ñun parce que néewaan réew yoo xam ne am nañ lu mel noonu bu ñu demee ci yenn réew yi nga xam ne ñoo ñu jege te même bi ñu jël indépendance sax ñu nekkoon beneen ñu nekk fédération boo gisee ñoom trajectoire bi ñu jël parce que dañu dem ba tarixa ya fa nekk ak kilifa diine yi neuf fa doole ñu jël beneen trajectoire bu ko tëg bu Sénégal mhm. Sénégal te ji kilifa diine yi ak tarixa yi mën naa ne ñoom ñoo téye yëf yi ba ba euh, ba en tout cas yenn ay yi euh, amu fi naka lañ leen koy nangu nag mooy ñu jox leen seen place mhm. mi nga xamante ne bi aussi sunu borom jox na leen ko mhm. parce que bu ñu nekkee ci jàmm loolu ñun ñëpp dañ koy constaté da ngay gis ñoo xam ne day mel ne sax duñ leen bëgg teg bët te loolu yaatu na ci réew mi de du du du way politique yi rek. Mhm. ba ci yenn intellectuels yi yenn bon ce que j'appelle les laïcards. Mhm. Euh, am na ci ñoo xam ne dangay dégg ñu ne sëriñ si nañu génn ci wàllu politique. nañu génn ci ni réew mi doxee. Mhm. nangam ak nangam. am ñoo xam dañuy dem naan sëriñ si ñoo yàq réew mi. te waxtu wu ñu jaaxlee waxtu wu ñu tiite. daw bëgg a làqu ci seen ginnaaw. sëriñ si nag loolu aussi dafay day mbir mu xaw day waar. il faut ñu nangu leen leen yàlla def. ñu nekk ci jàmm ñu nangul leen ko. ñu ñu ñu ñu jub aw ay parce que sax du ma ñu nekk ci ñu jub ay aussi ñu nangul leen ko. loolu aussi ñoom ala kulli àll li ñu war def danañ ko def. Mm. mais loolu mais mais loolu aussi dana yokk xañ na seen seen ci seen en tout cas day gën a légitimer seen yenn intervention yi ñuy def. Mm-hmm. kon jàpp naa ne toute la société sénégalaise dans son ensemble moo am intérêt. Mm-hmm. ci suuxat ak dëgëral tradition boobu nga xam ne am nañu ko. Mm-hmm. su boobaa rek. ñun ñëpp bu ñu tëddee mën nañoo nelaw xam ne réew mi du mës a basculer euh, dans la violence. c'est clair Mohamed. alors sëriñ bi au-delà des chefs euh, religieux yi nga xam ne rôle bu am solo la ñuy joué ci euh, ci mim réew et la responsabilité des acteurs politiques dans tout ça est-ce que jotul ñu dal di def lu ñu duppee un dialogue franc et sincère ñoom acteurs yi en tant que tel parce que quand même tension politique bi ñoom ñoo ko animé ñu waxtaane ñu waxtaane ko autour d'une table xool yan yoon la ñu war a mën a jaar pour une crise d'accord nga ci un dialogue franc et sincère. bon dialogue dialogue mu a jóg ci réew mi. ci dialogue national la ñuy jógee. loolu yéen ñëpp vous en êtes témoin ba am ci consensus autour des points yi nga xam ne même ci la ñu waroon dem élection foog naa ñaari points moo ci amoon ay jeexi jaax. su ma su ma su ma fàttali ko. mais day mel ne boobu jubawul nañ ci. lu lu bare bëri. Mhm. kon réew mi mës a ñàkk dialogue. non su ma nee dialogue il y deux ans réew mi mi ngi ci euh, jafe-jafe ci tension euh, ci ay euh, dossiers yi nga xam ne ñoo ko composé daan ci ñëw sax est-ce que durant ak boobu ñu toog yépp nga xam ne tension bi mi ngi plané instant bi à l'instant tin tin tin est-ce que jotul acteurs yi retrouvé wu waxtaanee réew mi jamono ji ba ñu am une sortie de crise. dialogue waxtaan bi am na solo baax na mbërte mën a ñàkk mhm. mais loolu aussi dañ koy def au niveau des institutions. loolu tey depuis deux ans réew mi xaw na jax mais pourtant organiser bi ñaari élection élection yi amul xeex amul xuloo amul dara ça s'est très bien passé et même élection yi bi mu jàllee y a pas eu de contestation kenn ku nekk nangu ne résultat yi baax na nga dem euh, toog sa maire bi fekkee gagné nga wala nga toog sa conseil départemental wala nga dem tag sa ndombu député nga toog foofu donc kon mën naa ne aussi réew mi amul blocage à ce niveau là comprendre ni ma mm. donc réew mi ci ci niveau boobu. léegi nag boo demee assemblée nationale opposition maa nga fa pouvoir maa nga fa c'est un espace de de mais bu dul loolu réew mi mi ngi dox. président teg na gouvernement gouvernement aussi mi ngi liggéey li nga xam ne mooy li mu war a liggéey kon tey li nga xamante ne bii mooy li am solo moo di li nga xam ne mooy consensus bi ñu am autour de de la nation sénégalaise ak ses fondamentaux ñun ñëpp ñu nangu loolu respecté ko dox ci jàmm ni ñooy parce que réew moo xamante ne bii ñu ngi rek organiser régulièrement des élections même parfois dañu naan élections yi mënut am parce que xam na mais teew dañu def effort ba élections yi am na mu war a amee bu ñu demee résultats yi leer nañ ñi ku gañe gañe ku gañe wut aussi félicité ka nga xam ne mooy gañe ko en principe nekku réew moo xam ne nekk na ci yenn jafe-jafe yi kon foog naa ne euh, ak ak réeroo dinay dinay am mais kenn ku nekk bu delloo see bu delloo see xelam rek def li nga xam ne moom mooy waru garam jàpp naa ne euh, réew mi ci jàmm lay lay nekk maintenant ak nag ndimbalu ñi nga xamante ne bi xaj na mooy kilifa di nii ngeen wax léegi. est-ce que le président on que le président de la République woo acteurs politiques yi ci obédience bi mu mën a bokk moo xam société bi waxtaanee quand li nga xam ne mooy fii réew mi toll. président dafa am loo xamante ni mooy euh, mooy sas loolu laa koy tuddee. mooy sas parce que sax ni ngi léegi ni ngi léegi dañuy juum naa buur borom leen président sas la am. boo xam ne njaboot gi nga xam tey jii ñoom ñoo ko tànn njabooti leen ñoom ñoo ko sas. sas boobu lan mooy réew mi nekk ci jàmm sas mooy lan mooy réew mi am émergence. kenn ku nekk am foo dëkk kenn ku nekk amul xëy. kenn ku nekk. am loo lekk. bu bëggee faju faju boo bëggee jàng-jàng donc loolu li nga xamante ne bii doomu aadama xañ ne waru koo mën a ñàkk président mi ngi sas mi ngi sas woowu mu am beneen sas aussi au niveau du respect des institutions loolu aussi réew bi dañ ko ko sas ne ko kat jox nañ la réew mi kon li nga xam ne mooy les différentes institutions yi fi nekk muy moom bi nga xam ne moom la yor muy le pouvoir exécutif li nga xam ne mooy pouvoir législatif